5M TV Sénégal chaîne bi leen di jox xibaar yi leen ci anam yu wér ci jaajëfal nañ leen mbokku internet yu 5M TV Sénégal yéen ñi safoo seen chaîne bile di fi tataane xibaar ñu àddu ci wàllu xibaar yi lu ñeel communiqué bi nga xam ni mouvement F24 daal di nañ koy fësal ñoom ginnaaw gi itam ñu jàpp ni njiitu réew mi daal di nay àddu jëm rekk ci wàllu nag lu ñeel élection présidentielle bile ndax moom ma ngay wax ni rek fi mu nekk nii jàpp na ni kon dina am ndam ci atum 2024 ñoom tamit. gu teguñu seen tànk waa F24 la ñu bëgg kay mooy rawatina ci li nga xam ni moom la ñuy woote ngir askan wi itam daal di génn nag ñu rekk mën a sauver Sénégal ca noone ña ngay wax ni kon nag aljuma jilee ñaar fukki fan ak ñett yi dinañu génn rek sol lu weex tàll nag daal di koy jullee juma daal di rek àndandoo sax nag wane seen bopp ak ay musuwaar yu weex ak i tamit seen oto yi ba ci seen buntu kër yi sax fépp fu mu mënti nekk rek bu diggante ci diggante ñetti waxtu ba fukki waxtu ak juróom ñetti ci ngoon nañu rek daal génn fësal loole bokk na ci di ñaawlu rek moom njiitu réew mi na muy doxalee ndax wax nag wàllu jàmm ci réew mi te loole moom dafa mel ni sax ñoru ko benn yoon ak wàllu dëkkin bu rafet ndax ni muy doxalee kon wutul jàmm ak benn yoon ginnaaw gi moom F24 ñoo ngay xamle ni itam seen mouvement bi nga xam ne rek ci lañu daal di nekk daal di nañu rek déposé nag ngir bëggoon amal ab manifestation ca nag bis boobee waaye mu mel ni préfet ak itam président ak lu mu mënti doon rek mënu leen tere ñoom rek ñu sol lu weex rek daal di génnee fësal seen bopp moom capitain Touré muy